maaleykum salaamaaleykum wa rahmatullah nuyu nañ leen ziar nañ tey ñu ngi suñu diiwaan Fass la ñu nekk mais tey open press bi Fass la benn doomu Fass Fass bennoo moom mooy aada Fass war a jàkkaarloog dafa mbër Ndiaye production Fallou Ndiaye moo ko tëgg Fallou Ndiaye doo tëgg lu ndaw l'entrée de aada Fass aada Fass ñëw dugg si ak doole waa Fass yëpp ànd ak ñoom ñu gis wàccaay ñu gis tamit ñëw bu am solo ñëw bu doy waar tey lamb ju rëy ji le 31 la incha rabbi ak Ndiaye production Fallou Ndiaye siyaar nañ la sa bés du ndaw dafa mbër ñu ngi koy waaj incha allah rabbi moom it ngeen gis lu rëy man ak Ablaye euh, ñoo ngi fi tey si Fass kon dañ lay xool ambiance interview ak waa Fass naka la ñuy waajee bés bi incha allah. duggee ni ngeen duggee. waaw lu tax lii. waaw soo gisee lii combat bi daf ñu jara parce que combat bi dafa am fu ñu bëgg a yóbbu fu ñu war a yóbbu te si kattanu yàlla aada dina bëree ba daan incha allah rabi ñun ñu jëm foofu parce que suñu bët teguñu ko fii. Tapha Mbeur laa lay wax. waaw ñun xoolal suñu bët teguñu ko si Tapha Mbeur yàlla rek a mu tiim. moo leen ko teg ñun suñu bët. waaw roi des arènes lañ bëgg am. balaa ngeen teg seen bët feneen ngeen teg ko ci Tapha Mbeur. ba pare génn leen ci ban ba pare. waaw dëgg la xam nga dafa am lu am fii tey ba léegi mosuñu fi dugal roi ñun roi des arènes moo tax ñuy rey suñ tigre rek ngeen am de ay tigre rek ak ay lion dafa doy mais roi bi lañ bëgg ñu ko jëlee dootuma topp seetaan lamb dootuma topp lamb loolu rek a ñu dese parce que gis lu ne dund nañ ko ñu dem ñu pare na dem na ci géwél ñu tëggal ko tuusal ko mu def ay misigam combat boo xam ne ñëwagul sax ñuy mystique xaw ma ñi bu ñëwee instant lan lañ fay def. ziar bu baax a baax. da nga am pression de. non amuñu pression barki sëñ Bamba mosuñu am pression combat bi ñu ko jàppee ba léegi amuñu pression. trois ans. trois ans ñu koy waaj di entraîné dans falaral barki sëñ Bamba. mais lii la yàlla dogal fii sa waay fii la teeralee barki sëñ Bamba sa tey. mais combat bi joxu la ak Messi. barki sëñ Bamba Tapha Mbeur mi ngi soog am combat mi ngi soog am combat si àddunaam kii tey lay bàyyi bëre dootu ko defati. xanaa naroo jàmm. al bi day sifflé ñu daan ko nang mu tëj làmmiñam. Tapha Mbeur mii. Tapha Mbeur tey lay bàyyi wax. alhamdulilah gis nga lu mu liggéey. àdduna moo koy jàppale ànd ak moom barki sëñ Bamba yàlla yàlla may ndam. gis ngeen ñi ñooy waa Fass c'est la jeunesse de waxambaane yeeg ñoom ñëpp def nañ la déplacement pour supporter seen mbër Ada Fass Tapha Mbeur combat Cristiano ak Messi sant ko teel gi. waaw ñaanga nga de. non ñaanga yi fan nga ko jëlee. linet yi ci xarnu bi rek. xarnu ba. ci town bi. léegi li nga sol nii nii nii. dama sol nii Baye Fall maa bi. mais dafa naaj se. gis nii ah. ah. am. loolu ah, la demee. Ah. bés bi yaa waaj. bés bi Ada Fass. wax ju fanaan àll la loolu rek la pareel jàpp daan dem ñibbi Tapha Mbeur nee ko day nagandiku. Tapha Mbeur ngay xeeb yow. Tapha Mbeur day xaar laa la wax ba jamono neex te bu jamono neexee du ko fekkee. Tapha Mbeur nee na moom mooy Messi làmb ji. te jour ba dina ko jàngal lan mooy. Tapha Mbeur comédien la day xaar. Tapha Mbeur xamante bu baax day nëgëndiku day xaar. loo xam si man Fallou Colobane maa ko wax Tapha Mbeur da xaar. da xaar ba jamono neex. grand yow yaa ngi yaa ngi bi de. waaye bañ egg ca bu jege nga xam ne lépp dëgg la. baaful bi nag barke maam Seera Fall kii day Baay Fall suñu mbokku taalibe la moo tax ñu koy dund moo tax mu am bisam ñu ñëw bu ñu amee ay bu ñu ko war yëgalee day teew kon yàlla na ko yàlla may ndam ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim li ngay wax nii da nga mel ni kuy bëre sax ay mel ni kuy bëre ko sama doomu nday moo war a bëre kon damay mel ni kuy bëre du ma dara sa luñ ma may ma jël ko dama mbër bu dimanche dama koy jàpp jàngal ko bëre lu garaaw laa lay wax bàyyi ba dimanche ndaanaan ngay wax Tapha Mbeur fan la doonee ndaanaan kan kan la daan ñu ni seetaan katu lamb lañ. Tapha Mbeur ndaanaan la de. Tapha Mbeur nan la doonee lamb nan la doonee ndaanaan. waaye. kon la 31 incha xool leen cummikaay yi cummikaay yoo xam ne xoolal làmb ji sax ñëwagul Ada Fass ay ay xool leen cummikaay yi cummikaay yi ah de bii de combat bu rëy la combat trois ans xam naa cummikaay yi war nañoo doy xoolal Ada Fass li mu indi ci wetu tëggkat yi waa ji yor cummikaay bi ak vert jaune rouge am xawma ma bi ban couleur dëkk la vert blanc rouge ah ay laket ay béjjën ci wetu tambour major bi ak layu non c'est grave ça mais examen la nag Ablaye examen la jar na ko jarnal ko wala jaru ko jar na ko nag waaw bés bu rëy dafa laaj lu rëy. borom ndomba yi xoolal borom ndomba yi mi ngi mel ni kuy bëre moom. <laughs> taalibe maam Saliou taalibe maam Saliou moo tellement physique ndeysaan en fer en forme. sa li naan il pète la forme. bàyyi leen ko mu dem bu ko kenn téye wala neexee wala neexee wala neexee wala neexee ñu demaat ñu demaat beneen mais eh, yow kii war naa mën a dem raam daan de dem remplacer ay ñoom kii Amady Badiane demaatal ma xool ña ngay màmm nag.